Bienvenue sur Salam Vision. sportif salaamaaleykum chers internautes tey ñu ngi fi Jàppo Sam ku wax Jàppo Sam wax la grande ASC mais suñu waxee Jàppo Sam suñu xel si football lay dem mais tey ñëwuñu si football si benn sport boo xamante ni mu ngi tudd tegball tegball ñu ngi koy créé en 2014 Hongrie mu dugg Sénégal 2019 euh, ASC Jàppo Sam am club bu ñu naan Jàppo tegball club booy xool seen ñoom ñoo jël champion du Sénégal deux fois ñoom ñoo participé woon si coupe du monde bi ba huitième de finale tey ñu war a seet si Mame Cheikh Fam Mame Cheikh Fam mooy double champion du Sénégal single et double moom moo demoon si coupe du monde bi fële sa Pologne dem fa huitième de place la toogee huitième de finale la toogee donc moom la ñu ñëw seet si allez sama gars yi si go ñu dem xool ko. ñu fi seet si Mame Cheikh moom mooy double champion du Sénégal première challenge bi mi ngi ko jëlee woon Géejawaay première février la woon 2021 euh, deuxième challenge bi mi ngi ko jëlee woon fële sa Mbour demaat na fi tamit euh, coupe du monde Pologne moom lañ seet si tey waxtaan ak moom mu wax ñu nan la gisee bool bi ak lan la siy xaar lan mooy ay perspective am tey loolu moo ñu indi fii fii mooy terrain bi fii la lépp xewe waaw ñu ngi ak euh, Sonko président jàppo Jappo Tekbal club bokk si club yi nga xamante ni moom lañ njëkk a créé Sénégal tey ñu seet si ko di waxtaan ak tuuti président ginnaaw ba nga nuyoo pare mën nga ñu wax lan mooy Tekbal. Euh, salaamaaleykum askanu Sénégal parce askanu Géejawaay maa ngi leen di nuyu nit ñi seetaan suñu mbokku internautes yi je pense que nii comme ni ko Rasoul waxee man la Youssoufa Sonko président jàppoo Jappo Tekbal club. waa juddoo Guédiawaye yaroo fi màggee fi ba tey aujourd'hui ñu diriger club bi ñuy wax jàppoo Tegbol club nekk une discipline sportive euh, ñu koy pratiquer à la fois en single en double comme en mix je pense que Tegbol je pense que dafa nekk discipline boo xam ne. ça nous est venu d'Hongrie depuis 1904 depuis 2014 en ñaari entrepreneur hongrois ñoo ko créé woon mais par la suite muy def ay tentaculum ba ñëw en Afrique ñëw au Sénégal en 2019 ñun ñu jot ci en novembre 2019 parce que ñu créé club bi officiellement en mars 2021 ñu am ce qu'on appelle la reconnaissance juridique club bi taxaw ci ay kayit waa ñi ngi koy pratiquer en single single nag soo ko déggee mooy benn par benn un contre un ñoo koy joué mu am ay règles yu ko yu ko définir ñu ngi koy joué euh, des pieds de la tête de la poitrine mais on ne joue pas avec les mains loxo du ko joué. am na tamit ñu koy joué en catégorie double maanaam ñaar ñaar ñaari nit ñooy far yeneen ñaar far. jouer tegball loolu la ñuy wax catégorie double am na tamit lu ñuy wax mix maanaam jigéen mën na ko pratiquer góor ak jigéen mën nañu ko pratiquer je pense que globalement loolu laa mën a résumer lan mooy lan mooy tegball di wax ni fii au Sénégal ñun bokk nañ ci le premier club affilié au niveau de l'ASTEC c'est-à-dire l'association sénégalaise pour la promotion du tegball bokk nañ ci aussi ñi ko njëkk a pratiquer également aussi yàlla mi dara tawul ñu nekk ci double champion en 2021 en single comme en double en novembre de en janvier et février 2021 ci National Challenge Series yi ñu def au mois de janvier ici à Dakar et bi ñu defaat au mois de février à Mbour yàlla mi dara tawul ñu sacré double champion en catégorie simple et en en catégorie double aussi. président explication yi leer na léegi yéen club bi football nan ngeen ko xamee ak nan ngeen def ba si lu Euh, discipline la bu bees boo xamante ni nit ñi xamuñu ko après ba ngeen siy dugg gars yi waxuñu woon yi ay fola wala ay caaxaan la na ngeen ba dugg si ba sérieux yi ba doon fii deux fois champion du Sénégal ba dem participer coupe du monde nan la ñëwee waaw euh, merci beaucoup Rasoul waa effectivement ni nga ko waxee parce que mm, man dama bokk si ñi nga xam ni dañu gëm benn dañu gëm dañu am benn philosophie dans la vie dañoo gëm ni euh, caaxaan pour man amul solo ci àddina lépp lu may dugg rek dama ci am ay ambition am ci vision je pense que Tekball bi muy ñëw ici à Diapo je pense que ci mën naa ni samay loxo la jaar en tant que secrétaire général de l'ASC Diapo Sam ñu informé ma boobu j'étais à Saint-Louis dans le cadre de mes activités de maraichage bi ñu ma informé aussi expliqué ci ay démonstration tëgbool nan la mën a demee ma xam ne lii war nañ ko mën a pratiquer parce que je suis au quotidien avec Matar et Mam Cheikh ak waa quartier bi xam naa ni ñoom am nañ ay aptitude de jonglage war nañu mën a jouer tëgbool c'est la raison pour laquelle euh, ma informé leen de loin ñoom tamit ñu demoon ci li ñuy wax détection de talent fële bu plage yàlla mi dara tëwul ñu gis ni am nañ ay prédispositions leur permettant ñu pratiquer la la discipline bi mu ñëwee aussi ñoom ñu di ko pratiquer ñu def ay détection de talent à Euh, je pense que c'était en novembre 2021, Association sénégalaise a mon invitation à Budapest, Hongrie. Le Sénégal devrait se représenter. Ci détection de talent, talent yi, maam Cheikh génn ci en catégorie single. Mam Cheikh aussi et Matar wara représenter Sénégal en catégorie double. Et malheureusement, faute de visa, mujj ñu dem parce que euh, bien évidemment le tekball amul ce qu'on appelle euh, une fédération mais plutôt association la ñu am loolu moo taxoon ñu muñ mais ñu continuer di ko gëm di liggéey je pense que ni en septembre 2021 la fédération internationale gis ni Sénégal ñi ngi ciy def liggéey bu am solo mu envoyé ñu say ay table mooy table bi ngeen gis ni ñuy jouer à côté table bi ñuy wax Tek Light je pense que ñu distribuer ko au Sénégal club yëpp jot ci loolu moo tax ñu defaat ay national challenge série je pense que Sénégal qualifié ci ba par la grâce de jë maam Cheikh qualifié ci championnat du monde bi ñu génn bërki démb décembre bi passé à Gilwis en Pologne je pense que ñu gis ci ay résultats yi mu ci yi mu am je pense que noonu la ñu ñëwee Rasoul Tekbul je pense que noonu la duggee fii au Sénégal à jàpp aussi ba jaar suñu loxo ba tey ñu koy pratiquer mu nekk discipline boo xam ne ci promotion la nekk mais commencé na a état ses tentacules partout au Sénégal. merci président gis nañ tamit chaque jour Mame ak euh, Matar a ngi préparé am ngeen ay jeunes ak ay jigéen yoo xamante ne ñu ngi koy pratiquer. oui bien évidemment absolument ñoo ngi préparer relève bu baax a baax a baax parce que ñun dafa bokk ci suñu feuille de route je pense que ni on dit souvent gérer c'est prévoir ñoo ngi prévoir bu baax a baax ay ay relève soo leen xoolee ci suñuy vidéo yu ñuy publier tous les jours di nga ci gis ay petites catégories ay jeune yoo xam ne ils ont douze treize ba quatorze ans ñuy pratiquer le tekbal je pense que ni ñooñu noonu ak talent bi ñu am mën nañu nekk véritablement la relève ici à Diapo Tekbal Club et pourquoi pas le Sénégal je pense que Sénégal mi ngi jëm ci ay Jeux africains de la je ñooñu noonu buñ leen tàggatee bu baax mën nañu représenter le Sénégal ci Jeux africains yooyu noonu ci discipline tekball. waaw ah, merci président. yaakaar naa leer na. après yéen ba ngeen jëlee deux fois champion du Sénégal dem fi coupe du monde autorité Guédiawaye yi recevoir nañ leen pour ngeen euh, wax leen seen jafe-jafe si lan lañ leen mën a jàpp est que def nañ loolu. non pas encore nag parce que ñun defuñu benn démarche du lettre binduñu leen tem pour dem vers les autorités. pour wax ni ñun ñoo dëkk waaye parce que ñun ñoo ñoo demoon championnat du monde non non parce que Mame Cheikh ne représentait pas seulement Diapo mais représentait la nation tout entière je pense que ne doomu Sénégal la bi muy dem drapeau Sénégal la yóbbu ay couleur Sénégal la porté woon je pense que ni comme Tekball dafa am nu muy organiser structure buy dund dafa am nu muy fonctionner y a ce qu'on appelle l'ASTEC l'association sénégalaise de Tekball je pense que prérogative yooyu pouvoir yooyu ñoom ñoo ko am ñoom ñoo am pour dem def ay démarches auprès des autorités étatiques ou des autorités locales pour ñu recevoir yooyu mais ñun en tant que club Euh, régulièrement affiliés association légalement constituée am nañ programme am nañ feuille de route je pense que ni am na ñoo xam ne suñuy bonne volonté la ñoo dëkk ci quartier ñoo dëkkandoo suñu quartier suñu amee ay quelques problèmes quelques soucis suñu wàllum teg ba ñu ngi leen di sollicité te ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax ci côté boobu noonu loolu laal xalaat. am perspective bi mooy dañu jóge ci championnat du monde de tegball maam Cheikh participé ci nekk doomu Sénégal yàlla dogal mu bokk jàppoo Tekball club bi ñu nekk nii. je pense que ni on va vers suñu assemblée générale au mois de mars tirer un bilan deux ans yi ñu def activité bi tirer ce qu'on appelle les bilans moraux et les bilans d'activité wax fi ñu jógee. fi ñu jëm ak li ñu bëgg a def suñuy perspective je pense que ni ñuy waaj assemblée générale bientôt au mois de mars je pense que vous en serez informé dans les dans les brefs jours ok merci. merci président yaakaar naa explication yi leer na. Mhm. léegi sa dernier mot la. waaw sama dernier mot xanaa di kontaan ci yéen rek. Euh, ci liggéey bi ngeen di def ci fonctionnement wu démocratie bi ñu nekk. en tant que presse en ligne yéen yéen a ngi vulgariser di propager sport yi nga xam ne pratiquement comme tëgbol c'est un parent pauvre ñu bari xamuñu ko yéen a ngi déplacé wu di ñëw ba jàppoo di ko def dans d'autres clubs pour que tëgbol mën a am promotion di leen jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci ci liggéey bi di woo aussi waa jàppoo saam yëpp. Euh, di woo quartier bi waa géej waaye di wax ni ñun ñu ngi ci teg bool di góorgóorlu te bëgg nañ tamit ku ñu ci geesu bu baax kuñ ci jàppali parce que d'abord suñu terrain bii nii ñuy entraîner je pense que dafa nekk un local boo xam ne dañu ko abal pour le moment bëgg nañ benn espace boo xam ne ñoo koy moomal suñu bopp mu gën a yaatu ñu gën fa ñu mën a def pratiquer discipline bi véritablement ak suñuy moyen euh, sportif je pense que ni des na lu bëree bari suñu équipementier yeeg ballon yeeg yu bëri des na ñu bëree bari daal ñi ngi tàllal loxo ñëpp daal di wax ni nos portes ne sont pas fermées nos portes sont grandement ouvertes à tout le monde kuñ ci jàppale ñu jël mais tamit xaaruñu ci kenn ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan ah di si ñaan yàlla tamit mu defal ñu ci ay ndam yu kawe suñu suñu njort di ñaanal aussi maam Cheikh ak Matar ñi nga xam ni sonn nañ ci trop bu baax a baax di leen Euh, prochain championnat du monde wala championnat d' Afrique yi di yàlla defal leen ay ndam ay ndam yu kawe seen coortu ba ñu mën leen di ko pratiquer en Europe ou et partout dans le monde ok merci. président. comme que président bi expliqué nañu lan mooy Tekpël wax nañu seen perspective fu ñu jëm ak lan lañ bëgg ak li ñuy xaar ak yooyu wax nañu ko dañuy dem xool maam Cheikh mi nga xamante ni mooy double champion du Sénégal en Tekpël moom moo demoon coupe du monde Gliwice Pologne moom la ki kii waxtaanal tuuti mu wax ñi jaajëf champion. jaar naka mu ñu ak maam Cheikh Fam moom mooy champion du Sénégal moom moo demoon Pologne coupe du monde bi moom lañ ñëw seet si waale tey maam Cheikh ñu ngi lay ziar. waaw xaadim maa ngi delloo ziar di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di am contentement bu baax a baax la fait que ngeen seet suñu fii si entrainement bi di nuyu waa jàppoo tegbol ñëpp voilà. maam Cheikh tegbol nan la ñëwee si yow yow da nga doon def beneen sport avant tegbol wala. waaw Tekball comme tout jeunes rek boo xamante ni nekk footballeur à la base ñun footballeur lañ démarré voilà nekkoon joueur nekk ci ba yàlla def ni en deux mille dix neuf ki ñuy wax suñu président bi muy Youssoufa Sonko jot ñoo woo nañu am na ay tournoi de détection ci lañ ko gisee commencé pratiquer sport bi depuis boobu ba léegi ci lañ nekk nag. gis nañu yow yaa jël deux fois champion du Sénégal en double ak euh, single. loolu liggéey bu yàgg la woon wala wala da nga ëpp gars yi niveau nu mu demee noonu. waaw <laughs> comme ni nga ko waxee rek liggéey bu yàgg la parce que tamit nit yi nga dugg ci sport boo xamante ni amaana séntu woo ci woon lii nii au début dafa metti woon benn table nekk fii nga continuer liggéey ba yàlla def nga am benn niveau bi on peut dire que ni liggéey bu metti ak patience moo ñu may loolu noonu tey jii. et puis duñ ne tamit dañoo ëpp niveau gars yi wala dañoo dañ leen a jiitu ci sport bi mais juste dañoo liggéey. ba yàlla may ñu tey ji niveau bi ñu ci am ba mën a rapporter trophée yooyu noonu yëpp. gis nañ tamit ba nga jógee champion du Sénégal yi mooy challenge 1 bi ak 2 bi euh, dem nga fi coupe du monde loolu expérience boobu noo ko dundee ba nga demee coupe du monde sa trois premiers matchs da nga ko dóor ba nga demee euh, huitième de finale lañ lañ la gagné noo ko dundee. waaw euh, satisfaction la tamit parce que nekkoon fii nii di liggéey on euh, mënu suñu imaginer que ni un jour dinañ représenter suñu pays voilà au niveau international te di yàlla def ñu dem représenter Sénégal ànd ceeg fierté ak gëm-gëm parce que tamit nit ki looy dugg rek jàpp naa ni gëm-gëm bee ci war a jiitu biñ demee yàlla def ñu am trois victoires bettuñu tamit parce que jàpp nañu liggéey nañ lu raw loolu parce que tamit mënoon nañ dépasser foofu. parce que liggéey bi ñu ci def yëpp mënoon nañ atteindre leneen mais tamit euh, comme début la et première fois la ñu am ci satisfaction bu doy waar. léegi xam nga ni Sénégal ñëpp a ngi lay xaar championnat war na amaat ñëpp a ngi lay xaar léegi say objectif lan la waat encore. waaw euh, xam nañ instant yi nii que ni ñu ngi turoon bi tamit ñu ngi ko téye et puis euh, waru tax ñu bàyyi tamit suñu suñu loxo et puis bi ñu jógee Pologne ba léegi dafa mel ni tey la ñu doog a commencé waat liggéey bi daa gën a yokku te ñu ngi ciy def lépp pour mën a tenir à titre bi et pour mën a représenter waat Sénégal parce que jàpp nañ ni lu passé moom passé la rek instant yi suñu avenir lañ nekk di xool pour mën a avancer. léegi looy wax waa Géejawaay nga xamante ni jàppoo Tekball club Géejawaay la nekk ak équipe nationale bi nga xamante ni yaay représenté Sénégal wax waa Géejawaay ak waa Sénégal yi. bon avant tout mooy di leen remercier gisoon nañ seen soutenir bu ñu soutenir au niveau euh, bi ñu nekkee fële ne Pologne gis nañ message yi gis nañu soutenance bi bu baax a baax waaw di leen remercier bu baax a baax di leen wax ni comme seen doom la tamit et di ñaan bépp autorité boo xamante ni tamit mu ngi ci géejawaay muy gis doomam wala gis euh, jarbaatam mu jéem ko jàppale ci moyen bu mu munti nekkee di leen remercier bu baax a baax di remercier tamit suñu président Djibril Sy mi nga xam ne moo jiite teg bool ak teg ci monsieur moo Gueye Seck tamit teg suñu président Youssoufa Sonko waaw merci beaucoup euh, amis sportifs kon ni ñu leen ko waxee woon chers internautes tey moo nekkoon suñu première émission rendez-vous sport ñu ñëwoon fii jàppoo Sam seet si woon jàppoo tegball club waxtaan ak ñoom ñu xamal ñu lan mooy tegball seet si woon tamit champion bi nga xamante ni moom mooy maam Cheikh. kon tey loolu moo nekkoon émission bi ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen dimanche ak ci beneen discipline incha allah.